جعل بري جعل بري مجول بري asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci li gën fës ci yéenekaay yi yi xëyee utali ca njaañ jàppal mu di ab jéng bu benn sëriñ daara daan def ay taalibeem ak le échos yéenekaay yi mi fësal ni da daan jéng ay taalibeem ngir yar leen le sëriñ daara enchaîné ses talibés pour les punir mi ngi tudd Xaadim Gueye moom ak ay wayjuru yooyu le nangoo noone sax nag lañ leen daal di tege loxo ci noonee sax la am ñu taxaw temb mer ba futt jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarme gendarme ak procureur yi def lu ni mel les incohérences de Wade la wax moom les échos soxal Pape di soppi ci jubboom ak ki nga xam ne moom moo di maître Madické Niang ak na mu dàq ki nga xam ne moom moo di Oumar Sarr noonu lañu koy séenee loolu di mauvais traitement des talibés mu duppee ko ci xëtam bu njëkk de talibe esclaves dans un daara ci Vox Populi mu indi lu ni mel ni tey ci xëtam bu njëkk li di ay chien enfer la daan yile ndong toll ci juróom-ñetti at jàpp fukki at ONG Jamra ci biir yéenekaay bi di Vox persiste et livre sa liste d'association d'homo ak leeral ni nikat fii ci Sénégal am na ay kuréelu borom ñaari turi yu biir ba tey ci biir Vox Pop lii di violence sexuelle fii ci mim réew 1374 femmes et enfants violés en deux ans juboo bi diggante maître Abdoulaye Wade ak Madi Kenya ci biir journal bi de tous les possibles la xëye moom Sud Quotidien 2020 soxal teg xel ci élection présidentielle 2024 diggante ñi nga xam ne seeni nataal bu ngi ni fàng ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien coowal franc CFA ci biir bile journal ak ki nga xam ne moom moo di docteur Felwine Sarr ca na mu gisee ni kat taxawaayu Sénégal bi mu war a am ci li nga xam ne moom moo di franc fa bi pas de cadeau pour les homosexuels la xaati moom 24 heures toftale ko ak nataalu jëwrin bi yor wàll réew mi ñu gën ko xam ci Ali Nguy Ndiaye association maanaam fukki association ak juróom benn la daal di biral ni kat am nañu li nga xam ne moom moo di ay récépissé mu nekk en violation de l'article 319 du code pénal Jamra fas yéene taxaw temb ngir daal di xeex lu ni mel coowal Petrotim la fësal moom Walf Quotidien Alioune Sall attendu devant le juge aujourd'hui tolluwaay feebar bii di sida nekk lu ne fàng ci biir yéenekaay bi ci bu nu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi fësal kàddu yi ki nga xam ne moom la ñuy duppee directrice exécutive mi xam le kat ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di njagamaar yi lañu gën a ràññee ci feebar bu ni mel la ñu daal di ànd ak la turbine ngir daal di ndar kepp li nga xam ne moo doonoon li gën a fës ci yéenekaay yi mu indil ñu ci xëtam bu njëkk horreur dans un dara de coki la wax indil ñu ci anam bi nga xam ne noonee lañu daal di tegee loxo ki doon def lu ni mel Alioune Sall ni ki tey lañu koy daal di déglu mu daal di jàkkaarloo ak ki nga lu mu fësal ci biir La Tribune soxal coowal Petrotim ginnaaw loolu journal bi utali na ca Guinée ak élection daal di xam kat kii di Mario Vaz dañu ko daal di dóor dóor yi foofu ci bureau ba mu doon voté lii moo daal di doon niki tey li gën a fës ci seen ay yéenekaay ñu leen di jox daje ëllëg incha allah jaa ngeen jëf. bari saxaani